benn euh, wala sax benn poste de santé rek la ñu am benn collège d'enseignement moyen te la ci gën a metti moo di forage ba nga xam ne moom la ñu amoon dafa faf paan ñu ànd Cheikh Ibrahima Diallo ci ay leeral commune bu Tànkon nekk ci département bu Bounkiling amal nañu doxum ñaxtu pour ñaawlu jafe-jafe yu ñuy dund population bi yéen gis ci ay teen la ñuy wëgg teen yoo xamante ni lay doon boo jëlee ci wàllu njur population bi sonn nañ trop jigéen ñi ngeen gis fii néew na jigéen ju fi am doom joo xamante ni amoo doom ci kaw charette te li ko waral mooy ñàkk yoon bu baax li ko ñaaral moo waral mooy ñàkk jumtukaay boo xamante ni dina leen permettre mu jege leen 58 villages ci commune de Tanko benn CM moo fi nekk mu ngi Tanko boo amee entrée en amuloo fa li nga xamante mooy tuteur sa njàngu day def dem ba yegg mooy ca mën nga faa yendu suba ba ngoon jot doo gis kenn ku la defal certificat de résidence El Hadj Mbaye nekk leader politique yoroon seeni kàddu kaddu ŋàññi na doxalin seenu jarafu commune mooy doyal nañ ci moom population doyal nañ ci moom bëgg nañ mu dem ci beneen fànn tam marcheurs yi talal nañu loxo njiitu réew mi pour mu jàppale leen ñu jot ci intrant agricole yi yu ñu dul gis fenn ay ñaareel bàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon bak ba ji Pape Mante Mboub daal di teewoon kan asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. borom jëm si Tiyaax Dugar. ak dugaar waaw temps yi mu yi. waaw non comme moom may jàppale si Dugar gi moom. temps yi xam moom. <laughs> Dugar foofu ñu jàppale leen. ah foofu ñu jàppale leen <laughs> football résultat huitième euh, coupe de ligue la ñuy waxtaanee. waaw jàppale nag euh, ni ki démb la ñu amal euh, tàmbali huitième de finale coupe bu ligue jàppal na sax génération foot moom jot naa qualifié gannaaw nag ba mu daanee ñii di waa Ndiambour bu Louga ca teg dóor ya ñett ci ñaar temps réglementaire bi nag ñaari équipe yi dañoo témbo woon ku nekk dóor sa morom benn but Linguère bu euh, Saint-Louis tamit moom ci noonu la qualifié